jërë ngeen jëf euh, mbokku téléspectateurs yi mbégte lañuy am samedi bu nekk euh, toog fii euh, di leen dégtal émission bi ngeen xam ne mooy samedi mag samedi mag ñuy wax ne dañuy allier lu am solo mooy la rigueur mais en même temps aussi de manière détendue waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi dalal ndax ay kilifa dañuy ñëw ci premier partie bi séq ak ñoom waxtaan yu am solo tey ji nag maam mbégte dalal fii ki nga xam ne moom la ñuy wax docteur Abdoul Aziz mbay mooy docteur cabinet euh, bu président de la république mu fas yéene séq ak moom waxtaan xam naa néew na sénégalais yu ko euh, miin bu baax a baax Euh, donc euh, day jaadu euh, bu nekkee ne dafa yor ndombay tànk boobu jege lool président de la république daanako mbiram yëpp moo moom la ñu wax ne ci moom lay jaar balaa mu yegg ci président de la république mu fas yéene tey jii may ñu jàkkaarlook ñun indi ay leeral yu am solo ci li nga xam ne moom la ñu namm def ci réew mi ak kimit benn taxawaay bu yees bi nga xam ne sénégalais yi seen vote le 25 bëggoon nañ ko ndax changé nañ li fi nekkoon kon am na lu ñu doon ñaawlu ci li nga xam ne euh, moo fi nekkoon kon bëgg nañ beneen doxalin bu bees loolu yëpp nag ci biir waxtaan bi dina leer tey ji ma jox la kàddu gi nga nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yi docteur. Euh, maa ngi nuyu suñu mbokk yëpp. Euh, ci Sénégal. Mm-hmm. ci bitim réew tamit. Mm-hmm. parce am na suñu mbokk yu bari yu nekk bitim réew. Mm-hmm. man Abdoul Aziz Mbaye laa tudd. maa ngi dëkk fii ci Sénégal. Mhm. fii laa jàngee fii laa jàngee école primaire Medina A. Mhm. ah jóge fa dem lycée Van Vollenhoven la tuddoon boobu léegi Lamine Gueye la tudd. Mhm. bi ma fa jógee ñu may ma bourse ma dem jàngi France. yàlla def nag ma nekk fa ba jamono yi ma doog a dellu si. teewul nag at bu jot. may ñëw fii. ci yoon yu bëree bëri. Mhm. parce que dama fi am bokk dama fee dëkk am fii wàll. Mhm. nit fa mu juddoo fa la dëkk fay maamam dëkk. Mhm. fa la dëkk man kenn mënul wooy nit ku baax ci Sénégal te tuddoo suma maam. parce kuy wooy dangay ngay dégg ñu nit maar Yaasin may biigee. ah. Maria waaw loolu dañ koy dégg. dañ koy dégg ah <laughs> baax a baax. voilà man Maria Sine may sa biigee. Mhm. moo jur déggan sekk mi jur Fatou mbay mi ma jur man. kon kenn mënuloo génne Sénégal. waaw génne dana jafe. bool bati ko doon doo woy mukk ba pare nga te waxoo Dogo Faali ak Maawo Joor Kumba Samba yaay Jaloor dëgg la man Dogo Mbay moo jur euh, Amadou Dërgën mhm. mi jur Matar Binta mhm. mi jur Maguette Mbay Amadou Dërgën tamit la tudd. Mhm. mii sama baay. donc man Dogo Mbaye sama maam la. yow yow est-ce que boo demoon feneen sax di nga fa mën a bokk. ah man fu ma fu ma fu ma dem mën naa faa trouver samay mbokk parce que. foo demoon beneen réew laa wax. parce que li nga wax nii dafa mel ni sénégalais <laughs> pire li ñuy wax la dëgg est-ce que mën nga foog bokk feneen. kon euh, ñu dàq benn wax. mooy dégg naa ñu ne kii tubaab la ma ne ah loolu lañ doon wax. liir naa ko ci journaux yi de loolu kon dàq na wax li nga wax li dàq na ko. ah dañu ni européen la bu këyit doon doon taxa doon européen. man oh. yow nur naa la européen. yow boo ma doxeek man taseeg man ci mbedd mi. Uh-huh. da nga ma ni kii européen la. déedéet ah moo tax ma ni nit ki bu ko sédd rek ci ni situation demee. Uh-huh. du ma sax dem ci détails yi waaye ku ñu wooyee ambassadeur de l'Union européenne sur le Pacifique. Uh-huh. am nga kayiti européen uh-huh. mais kayiti européen taxul nga daq sa kayiti sénégalais mësuma tàggook ñoom ba ma fi jógee ca lycée uh-huh. dem jàngi yàgg fa ba léegi à chaque époque samay kayitu sénégalais mi ngi taxaw mais sama liggéey yóbbu woon na ma foofu may def loolu waaye man day ku ma gis xam ni surtout maar farma tàkko sekk laa xam ni dama bokk ci kajoor pas tey rek dama ci bokk dem parce que woykat bi dafa nii. Uh-huh. sama xarit bi dafa woy mu ni Ëmbëri Ngoone Sabel dafa ànd ak Urumar Seck sos Kajoor Urumar Seck moom mooy sa maam parce que moom meññ maa Demba Saagaan Seck mi meññ ma Paate Penn Guy mi meññ Maria Sin may sa bigi bi ma la waxoon léegi. Uh-huh. mais keroog Tiwaawan le 4 octobre 1886 ka jëkk a dee. Uh-huh. santul Fall santul Diop mbay la sant. sama maama Demba Mbaye Birima Dolly donc man bu ma nee fii laa fii laa masane te fii rekk nag laa mosuma doon leneen. wax jooju sax waxu wolof bu dëggula fii laa te fii rekk laa loolu il faut que nga am dégg-déggin bu baax pour nga xam lan la war a mën a tekk fii laa te fii rekk la boo amee dégg-dégg bi en tout cas doo bind Union européenne di la dara d'ailleurs ku ma laajoon ma wax ko wax bi dafa jotul woon rek. Mhm. tax ñëw ma pour yow lu tax ñu ñu ñu ñu junj wax jooju lan moo ko sabab. du maa tax du tax dafa am ci dëkk bi ñu bari ñoo xam ne dalaguñu ni changement bi am na. gëm yàlla. gëm yàlla doylu fii dëkku cosaan la boo xam ni am na jikko yu ñu bëgg ci nit ñi. Mhm. bii jikko mooy jikko doylu nga xool ni amoon naa amatuma mënoon naa mënatuma saa bu ko nit defee bépp askan wëlbatiku jox ko ay teraanga ak cër yoo xamante ni daf ko mérité doylu dañuy indi lu bari waaye boo bu sa àpp jeexee ci mbir nga bëgg a wëlbatiku bëgg ñëwaat bëgg dugg ci biir loolu te xam ni yàlla gën na la la ca da ngay indil sa bopp fitna comme ni ko sama turandoo suñu Abdoul Aziz si doon wax. Mhm. fitna rek la nit ñi jara moo jara ñaanal nit ñuy moytu. Mhm. parce que fitna dafa yàq àddina yi nit yàq xeli nit yàq jëfi nit yàq tamit jëf jëm jëf mu jëm ciy bokkam te nit bu jëfam yàqee la mu bokk ki bokkam. Mhm. am na loo xamante ni yàqu na ci moom.